ab bataaxal ngir wax jafe-jafe yi nga xamante ni si moom moo nekk ci réew mi nee na su ma neexoon boole pat ak organise maandu ci li nga xamante ni moom moo daal di xew ci réew mi waaye bu boobaa dafay mel ni damay daw samay responsabilité wax ci li fi am moom moo di faw rek eh, ñu wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk moom président Macky Sall ay kàddoom ba tey di àddu ne ñi fi nekkoon ñoom ñooy ñi nga xamante ni démb ak barki démb bi ñu féetewoo ci opposition bi eh, moom Ousmane Sonko dafa doon wax rek ni bis ñu ko falee soxlawul état de grâce tey jii bi ñu ko daal di falee Euh, mu taxaw rek di sàkkuwaat ci sénégalais yi ne nañu ko may ab diir ba tey moom Ousmane Sonko euh, moom moo fi taxawoon ni am na projet boo xamante ni si rek bis bu ñu ko tabee euh, Sénégal lépp lu leen naqari woon dina leen neex te ba tey boobule projet moom ëttu yéenekaay bi di xamle rek ne lu ci ëpp dañu ko daal di rek copier ci PSE bi ñëw teg ko moom Macky Sall nee na te mbir ma sax nañu ko defee dara baaxul ndax bu doonte ni lu baax la sax ñu ne mbir mi dina daal di rek jëriñ sénégalais yi moom président Macky ba tey ma ngay daal Euh, jëm ci situation réew mi Tribune Quotidien noonu rek la ko daal di fësalee moom nekk nee na Tribune libre la daal di def diggante euh, président Macky Sall ak ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko mu mel ni rek euh, da ko leen daal di damate ba egg jëm rek ci koom réew gi mu jàpp ne waxtu bi tembe dafa tàmbali di nasaxa te bi mu jógee ci réew mi bàyyi na ko rek ci ay loxo yu wér waaye bàyyi na fi te yoo xamante ni jàpp nañ ni war nañu rek daal di mën a suqali réew mi président Macky Sall di àddu ba tey yemul foofu ndax ginnaaw bu mu waxee bon bon ak rek tooxi yi nga xamante ni jàpp nañ ne eh, réew mi ak kilifa yu yees yi fi nekk dañu ci daal di dugal ma ngay xam ne rek ne faaw rek ñu daal di installé ci réew mi eh, lu nga xamante ni moom moo di union nationale maanaam moo xamante ni kenn ku ci nekk rek dafay daal di jàpp ndax lu ko moyut eh, ci tooxi doona la ñu daal di jëm te bu boobaa kenn du ci daal di mucc kaddu président Macky Sall di ab bataaxal boo xamante ni bitim réew ga mu nekk la ko daal di bind yónnee ko rek kilifa yi daal nekk ci réew mi ñu jàll ci beneen ëttu yéenekaay las quotidien dafa daal di xëyee ak tête de liste rek sàmm sa kàddu di Barthélémy Dias ma ngay daal di àddu rek eh, nee na lu jëm rek ci wàllum borom ñaari tur yi bis bu ñu amee majorité foofee ci assemblée nationale des na ko daal di criminaliser moom ëttu yéenekaay bi ne campagne ak mbirum borom ñaari tur yi dafa mel ni sax dafa daal di dellusiwaat maanaam wax ji ci boppam eh, moo commencé ndax waa sàmm sa kàddu dafa mel ni lu ëpp ci seen i campagne ci mbir ma la ñu ko daal di deme demee ñu jàll ci beneen ëttu yéenekaay yi le quotidien moom it noonu la daal di dikk an ba pare di àddu rek jëm ci campagne ak Amadou Ba Ba mi nga xamante ni waxtu bi tembe moom dafa daal di dakkaloon rek lu jëm ci campagne la mu daal di àddu rek ba fësal ko eh, ci bile ëttu yéenekaay moom moo di rek waxtu bi tembe faw rek ñu xool priorité yi nga xamante ni askan bi moom la ñu daal di soxla lu jëm ci mille milliards yi nga xamante ni Ousmane Sonko moo ngi koy wax ni dañu ko daal di fekk eh, ci benn compte privé moom Amadou Ba la mu ci daal di xamle rek nee na loolee tànk tegu ci ay bëtam eh, mënu ko daal di gëm coowal Ousmane Sonko moom ëttu yéenekaay bi di Walf Quotidien jàpp ni mel ne ku xabtalu ndax ndax lu mu wax bañ ne déet la mu jàll ca la ca des bokk na ci moom moo di rek 1000 milliards yi mu ne dañu ko fekk ci benn compte boo xamante ni ki ko moom dafa bokkoon ci gouvernement président Macky Sall euh, léeragul loolu waaye ni ki démb ci campagne yi yëkkatiwaat na beneen wax rek bu doy waar génne ko ndax am na ne benn fonctionnaire boo xamante ne si rek logement public bi ñu ko daal di joxoon euh, nee na chaque fin du mois dañ ko doon rek facturé lu toll ci 1 milliard 600 millions euh, muy rek somme bu takku boo xamante ni moom Ilimane jëwriñu Ousmane Sonko daal dina koy fësalaat ni ki démb démb moom ëttu yéenekaay bi jàpp ne euh, lu mu wax euh, bañ ne déet la mu jàllaat ci leneen bi ëttu yéenekaay di Walf moom moo àddoo lu ñu mel euh, keneen ku mer ba foto dis rek Cheikh Thierno Alassane Sall ay kàddoo di wax ni la Cheikh Bara Mbacké Dolly doon wax ci Ousmane Sonko ne dafa jàppee boppam yàlla ju ndaw moom ëttu bi nee na lu ñu mel foofee la Ousmane Sonko toll ak Thierno Alassane Sall la ko merloo ba foto di jëf ji ñu ko def ci campagne yi ginnaaw ak cortège boo xamante ni dafa rek daal di daje ak cortège su Ousmane Sonko moom ëttu yéene cabinet policier yi ci boppam ñoom ñoo ko daal di arrêté ngir Ousmane Sonko eh, jàll ba pare mu doog a jàll moom ëttu yéene bi jàpp sax na mu ko daal di tuddee eh, rek eh, moom moo di rek ki nga xamante ni moom moo di rek roi bu ndaw noonu la ko. ëttu yéenekaay yi fësale eh, ba tax na Thierno Alassane Sall jàpp ni la Ousmane Sonko doon xeex démb ak barki démb eh, ni policier yi fi nekk ay policier président Macky Sall na nee na lu ñu melite la ñu gis ci jamono ji mu tàmbali di ko dox dafa mel ni mburu faf ka fëriñ la woon démb moom moo fi daal di nekkaat eh, nit yi yoroon système bi ñoo changé waaye système bi ba tey moom moo fi nekk di kaddu yi Thierno Alassane Sall mi mer ba foto ginnaaw ab cortège am boo xamante ni dañu ko daal di arrêté ngir bàyyi Ousmane Sonko mu jàll bi la ëttu di info moom moo ko daal di fësal jël source a dikkaat ci waa Pastef ginnaaw na eh, Amet ndooy mi nga xamante ni dañu ko rek daal di jàppoon ngir mbirum permis moom ëttu yéenekaay bi di àddu ko jàppaat nañ beneen eh, waay boo xamante ni si rek Pastef la daal di bokk moom itamit lu ni mel la daal di def rek di dawal te amul benn permis bi la ëttu yéenekaay di àddu ko rek ancien ki nga xamante ni moom moo di rek eh, xaritu Ousmane Sonko la nekkoon ki nga xamante ni moom moo di rek ancien fii de sapeur pompier toll ci ñaar fukki at ak benn oto Ousmane Sonko wala ci oto rek convoi waa Pastef la yoroon euh, doon ko génne ci côté yi bi waaye respecté wut lu jëm ci code de la boole ko ko yorut li nga xamante ni euh, moom moo di permis ba bi tem bi rek di koy teg loxo bi la ëttu yéenekaay yi surtout à euh, fësal ginnaaw lu toll rek ci 10 milliards yi nga xamante ni président de la li nga xamante ni moom moo di opérateur yi ci bor bu ñu leen ameloon Euh, jëm rek ci wàllum pomme de terre bi la ëttu yéenekaay di jàpp ko ni looleet mën na daal di indiwaat ak suqali jëm ci boobule secteur lu jëm nag ci gerte jël nañ ab dogal ne euh, benn fepp gerte du ñu ko génneeti ci réew mi di ko exporté foofee ca bitim réew lépp rek euh, dañu koy bàyyi ci réew mi transformé ko xool naka la ñuy def ba sénégalais yi mën ci daal di jariñu bi li ëttu yéenekaay ne dogal boobu Mbaba Diop moom moo ko daal di jël di ministre bi nga xamante ni moom la ñu daal di dénk lu jëm ci wàllum mbay ñu ci beneen ëttu yéenekaay yi libération dafa dafay mel ni foofu rek la ñu koy daal di eh, ndar keppe ak lu jëm rek ci contrat de partenariat bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci rek secteur privé bi di PPP moom ëttu yéenekaay bi ne loolee mi ngi daal di am ci diggante atum 2016 eh, jàpp 2021 mu mel ni rek contrat la boo xamante ni si la ca nekk lépp dafa daal di faux maanaam anam gi nga xamante ni eh, noonee la ñu ko daal di doxalee dafa daal di wuute lool ak lu am waaye dañu koy daal di jeexalee ak xibaar bu jëm ci wàllum transhumance bi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku ci Pastef moom Ousmane Sonko dañu woon démb ak euh, barki démb euh, bis bu ñu faloo transhumance dafay jeex ci réew mi maanaam kenn ku ci nekk parti ba nga nekk fa ngay toog euh, tey jii daa mel ni dañoo gis rek ñu bari ci ñi nga xamante ni dañoo féete woon ci parti au pouvoir dajale seeni i ak seen i kalmañaan ngir fekk ji li nga xamante ni moom moo di Pastef ëttu yéene kay bi li ko jaaxal ba tax mu samp ab laajte nee na waa Pastef baadu li ñu wàcc woon démb ak barki démb moom la ñu bëgg lekkaat bi la ëttu yéene yi moom moo daal di àddoo lu ñu mel dafay mel ni loolu moo daal di gën a fës ci li yi xëyee niki tey ci seen i xët yu njëkk yamoo ak àllarba eh, juróom-benni fan ci weeru novembre atum 2024 way leen di ànd ak suñu programme ci kanam tuuti di ngeen am seen émission ak en débat cant ak ngërëm da leen di ñeel di leen ñaanal kenn lu jàmm